alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah وكل فما قال راك مجيب كفيك ربح القلب طرا وكفه وغيرك لم يكن لديه نقيرا يا طيرا ينام الظهيرا الله والملك للإله وزورا فبرهام هذا العبد بالله فلم يكن يخشى منه يا خير الله يزيد أبني موس عكفت ببابه رأى بعده حفيا عن سرج مدحو وكنت لسرب العاشقين مديرا وأسقيتهم نهلا وعلا وداده وبلها دام الخير يسيرون سيرا في المجالس فعجبا لسير جلوس يوم سحورا ركعوا في تلك روض معارفين تراهم سكوتا والمقام سيرا قديم الماء ألزمني بكرم حبيبي ومدحه عليه صلاة الله ما شارق القفار كفاني المدح الماكرين وكيدهم صلاة الله كالقطر والحصان وكالرمل والأوراق والمقدار بطنا وظاهرا مدى دهري يا من قال لي كلما أصلح محمد عبد الله سيد خلقه وسلم عليه ورحمه وشرفه وعلي المكرمين وكيدهم فتممه رب كريم أحبه وأكمله حسا ومعنى وطاعة سهسه رفرفا وأول موجود وأول قادم وأول مخدوم يا حفا توالي المكرمة إلينا وكيدهم وأول مسكورين وأول ذاكرين فوافى لنا تلك سريا مشرفا

حبيبي محمد ألف حبل الأمانة والوفاء ثمانية المقدر الماكرين وكيدهم كابر والفساد وماري من قيل لنا من محمد سوى ظله ماحي ظالم مثقبا لغاره رائم قد أتى رسالة من الله مهما جاء متعاكفا لغير إله قال رسالة من الله مهما جاء لغير راء قرأت رسالة من الله مهما جاء متعاكفا فجاء نذيرا داعيا مبشرا وارشد من قد كان قبل تعسفا لا اله الا وصام صيف حج مجاهدا وذكى وثاد الدين والكون ثقفا بدر محمد وجبريل أو ميكال فيه تكشفا كذلك أذرافيل جاء مبارزا كذلك أسرائيل الحرب لففا لما إلى إبقاء وتنور الألقان من الله ما جاء بخمسة آلاف أتوه بشارة وناصره مدحة وناصر المولى البرايا وقد كذا أبو بكر علي إمام وسيدي أبو حفص الفاروق حبي من صفى بخمسة آلاف أتهم رسالة وناظر المولى البرايا وقد وعثمان السنورين والصنو قد أتى علي أبو سطين المجد لحرف ثم عامر من وفى فيا قبر جميع الكافرين جميعا قد ارضيتم المولى بنصرة المصطفى بعثة آلاف أتوا بهذا وناصره المولى بكسركم الأصنام جبر قلوبنا وشبت من الحال

كبير واسع دون فضلي أيا رب فضلا منك فانطلقت فلا راحة للعبد بغير نيله مطالب وأفد بارج المنيفات جاه رسول الله حقق رجاءه وجاي من أتى بعده في قلب آثار المصطفى عليه صلاة ربي حق قدري وآل وأصحابي ومن قد تحنفا لحسن آلافي la دار قمل مكودار كم ويلك كي يا دون ربان سرون جدل بقلام بوشي دين الإسلام سوف بينك جخم حيوان شخدين والله خرب جامع يا دي جانت جلال سخر قصي أيلا تكسي وحدي ديوان Abdoulaye maa ngi lay yalwaan yow mi doon Tijaane may ma saami bëtum xol ba dee si lii maa lay ndax ñu jóg ci ber koor raf leneen xoduñu kon ñu li ñuy gaar saa gën a gaaw xol mu fàtte bay buulay sekk wal gën a baawal ba mel ni aw nii sa atte gën a wér yaay alilu rahman bokkul daal di naan fa yakun sa xar baax nga la boo sewal na docteur ne koo tabli mu wér far du dem ci docteur koo tabli saana dagol ko busra mu taa docteur duniya kazaka ora dama sopp di la way waaye raw nga say baas ya dekkal ta wannan yasa kuy murit na ma jaw way la saydi barhama waajo kammala ràññee te sopp barhama mu ma xaatir baa mu may ma sopp moom te baawa nam kal baa mu may ma fa moom ko dinaa mën a kii di ci soodaa di kañ ki gan fee la ka buur jiitaloon duhul fee marhaama bagaroo tee ba say bagan fee awan nga ñalaloon aar ba seeni na fee aadama alalam moom la jaay ci lislaam ko xar mu fay doon. su ngeen xamoon ak may saa yu nekk ngeen teew. bañ a liikaar bañ a diinga te ngeen saxoo waaw. batu kañaan dama benn benn bu seetlu xar baa. waa ñu gis ba nga wàccee ñu xam ne yaa baa. wax la jokkeen baayam te raw ci lislaam. benn sëriñ moo du fee wax na dem na daaraam. su kañaan amu doon. loolu moo di am baa. su fekkee daxal yëwee daam ba mu yoree xarafu la sampo daaraam di joor ay masalam boole koog makamaam si rub ganeem bi nga boole xun ci ay moom yaay xubb yaay xoos yaay say diri jaal tuuti rëy la yor ñoo ni fam moom muy muñ mooy jikkoom ja mu doon ne ca saytu adnaan dogal bu rëy bala doy law ci kun fayakoon waalewul adina lii ci mbir dafay niil xëccuwul loo mooy yàlla ak memikaan musta am ku mu yem ci xalal ba ne sooy nga am kom du ko bég loo xamul ko mooy faaya fontewul ay kon kunta mooy liita rabbu samawaati wal ardi doy na ko jeex lislaam te ci faqiir nga suñu roog yi su xoon si sunu maam ba ñoo mi ba weer sa dangaan mu ba jaganta shakku sai ba rabbul jalil kamal jakaman to rabbana fal kawai farida mabsewal na rabbana wata kun mata wala falawa fawzi digalam kam ilahi aso bayyana sunha wasiyar qadim ban dame mace pomba mu def joran yema jaatu ko xal ya ban janam bay loo mooy e topp kay toppam moom meloo e Yuusuf e la yor ki rawoon ci ay taar da ku gënal moom sopp ka dafa yor leer alhaaji suñu maam daan na wax ne mooy taar فيرفان تدين أجد سابقات الجهاد تقوسون يفرا وإمام الإرفان waral kat mu saway bii tam fi yow jaam ba loolu li bi tam doo dajal ba dem saama kasaani kasa manee su koy mool ajaay bi nga sàkk si wal na la dar tey daa salaatu البحر كما سميت منها إلى الأبد